bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayyidina muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin bokk yu nuy seetaan yëpp ci gox yu fasantikoo yëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ci sunu plateau bu yanj bi ci émission bu mag bi nga xam ne ñépp rafetlu nañu ko bég ci di ñaan mu sax tabaarakallaahu ñooñu ñépp ñu ngi leen di delloo mbégte mi ak nuyoo bi ak ñaan yi yal na nu ko yàlla boole di wax ni rek yal na nu yàlla nangul sunu koor yàlla dolli sutura ñi nga xam ne ñi ngi arfaan yoonu penku yàlla na ko yàlla yombal te yàlla jàppale leen te nangul leen te sàmm leen ci dem sàmm leen ci dellusi si tabaarakallahu noonu la ñuy nuyoo soppey émission bi yëpp nga xam ne am na ñoo xam ne bu émission bi tàmbalee dootuñu dégg dootuñu gis dootuñu bouger ñu ngi jàkkaarloog écran bi ngir yàlla ak di taataan am ca ñoo xamante ni bii sax seeni crédit ci lay yem ndax di bëgg jokkoo ak nun coono boobu te du ñu mën a am nu ñu def ba yegg si kon nag ñooñu ñëpp ñu ngi leen di massawu coono di ñaan yàlla yàlla yokk leen wér yokk kàttan gi yokk wërsëg wi di wax ne sentir nañu seen cofeel ci ñun yal na yàlla fay leen ci yiw tabaarkàlla noonu la ñuy jottale itam euh, Oustaz Fat Bintou nuyoo ak ziyaara mhm. di la wax ne sunu mbokk Maguette Thiam nekk ca Kutunu mhm. nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaar ci koor gi di la yóbbante nuyoo ci sëriñ ba kaaw mhm. di la jottali tamit nuyoo mbokk mu ñuy wax xaar saar nee na ñoom bu émission bi tàmbalee dañuy jéem comme ñeneen ñi man leen yàlla dafa maandu lu mu lu mu lu mu tekki dana ko tekkale parce que ñëpp jaamam lañu in takunu ta'lamuun fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun <laughs> ok donc yàlla noonu yàlla noonu la maandoo macha allah su ko defee ñu jox euh, Adja kàddu gi. Mm-hmm. Euh, nuy tamit nag sunuy njaboot yëpp. Euh, rawatina sama benn doom boo xam ne sama yaay lañ ko tuddee maam Marema jamono bu nekk dafay ànd ak nun di nu seetaan ak euh, sunu woyjur bu ku ñu suñu woyjur bu góor ñu koy wax Pape Daouda nekk fële moom tamit ci jiwaalu jamono bu nekk mi ngi ànd nun di seetaan yal na yàlla fay ñëpp yiw tabaarakalla Adja ñu jox la mm-hmm. kàddu gi nga nuyoo. ñu ñëw nag. ci ñaari tomb yu ñu nekkoon démb mhm. xam nga démb ñu ngi woon ci mujj koor yi mhm. waaye tamit am na baat boo waxoon nga wax ne laylatu xadar romb nañ ko biñ doon célébrer ndoo mhm. wante naa fi la du jeex def mbaax du jeex sarax du jeex loolu nag waxoon nga ko dem ba mbokk yi ñaan ma nga gën ko yaatal incha allah ndax sunu bokk jigéen ñi gën ci mën a jëriñoo kon ñu jox la kàddu gi nga nuyoog mbokk yi ñu doog a ñëwaat nag ci tomb daara jooju la incha allah waa jërëjëf oustaz yàlla na la yàlla fay aouzu billahi sami alalim min alcheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa ashaabihi wa man waalahum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog ñun ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di fay oustaz im nuyoom waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mm. oustaz Mor maa ngi lay nuyu di la ziyaara yow tamit di la ñaanal yàlla li nga yéene jaam yi yàlla na ko yàlla def. amiin ah, yaa rabbal aalamiin ndax yow euh, sa yéene bu matee benn bët dootul xonqati. te loolu am na solo. Euh, ndax lu nekk ci xool feeñ ci kanam. Mm-hmm. macha allah moo tax ñëpp daal sopp la. bëgg la euh, macha allah rafetlu nag torop nag liggéey bi. Mm-hmm. yàlla na leen yàlla fayal boppam. comme ni nga ko waxee rek xam naa ñu nuyu suñu kilifa diine yi nuyu suñu kilifa aada yi nuyu yi tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi muy asatise yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi fu ñu mën a nekk ci organe de presse yi mhm. ak ñi nga xam ne sax ña nga toog ci seeni ruq mhm. di jàppale nit ñi ci njàngale mi waaye di jàppale nit ñi tamit ci euh, macha allah ndogu yeeg euh, muuru koor yeeg macha allahu ak yëre julli yi ndax mhm. jaboot yi ñaar rek moo fi taxaw fi mu nekk moo xew ci jamono te ñëpp war cee nekk muy digle borom bi subhanahu wa taala mooy muddum koor ak bésu korite gi nan lañ mm-hmm. koy dunde ndax bés bu nekk la ca war a xew ak lañ ca war a def su ko defee oustaz dañ lay jottali euh, nuyoo yi tamit macha allah nit ñëpp ndaxte fii bu nu génnee mm-hmm. ñoo ngi lu nit ñi dañuy woo téléphone waaye des fois nit woola ne la mënuma la jot fekk da ngay wuyu keneen mm-hmm. ndax ñetti lii ñi ñu yor yëpp yenn yi ñooy sonendoo mm-hmm. ñi nga dendal sax dañoo lay mujj di jàppale euh, bu ko defee ñuy jéggalu bu baax am na benn xale boo xam ne ay dara la tudd Guinée équatoriale la nekk mm-hmm. nee na waa Guinée may mun a lii waa Gabon ma ne ko waa Gabon ñoom am nañu chance am na ñuy dugg ne may mun a lii sëru Xadi lii ak mam awa lii lii awali ma dem Thielo sama xarit. Euh, ñu ngi jottali nuyoo mais oustaz Adja Khady Samb ca Washington. macha allah xam nga ñoom Fatmata macha allah Diallo ñoom dañu yore foofu ma jàllu lislaam bi foofu jaaliyaat. Mm. Mm. arab bi foofu ñoom foofu la ñu nekk. nekk nag famille religieuse boo xam ne ñëpp xam nañ leen même seeni waajur yi nekk fii. Mm. mais Adja Khady Samb mii dañ koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak. wér gu ndaxte fi mu nekk. moom dafa dafa moom daal defe naa ne dafa seet espace yu mag yi nekk fii mu yónnee fa ay bon rek ne nañ ko ko tasal. alhamdulilah parce que am na ñoo xam ne jour korité daal dafa bëgg ñu soos. macha allah yal waaw dafa bëgg ñu soos loolu am na solo. Mhm. xadi ñëpp dinañ soos bu soobee yàlla incha allah macha euh, te ba ma ko Adja bu Seck madame Dia. ak sëyna bu sekk Diawara ñoom laa see xale woon. Mhm. Euh, ba léegi macha allah dara yàquwul. te loolu nag dafa am solo. Mhm. may remercier nag jigéen ñi nga xam ne bi ñu leen nee jàkk jigéen ñi. am na am na dañ ko soxla. jigéen ñaa ngi ñëw. macha allah góor ñi ne xam naa ne gis nañu nit ñu def. <laughs> ndax ñoom oustaz dañ cee maandu. <laughs> waaye nag nañu xam ne ñoom it. Mm-hmm. ñun ñoo leen di jàppale de. macha kon nag bu ñu fi fexee ba woote fi parité ci affaire mm-hmm. liggéeyu jàkk. ba ma doon la ci benn ba ñu toog téye suñu loxo. te bi ñuy tabax jàkk góor ñi kat bi ñuy defar jàkk góor ñi. <laughs> Eh. ku jigéen moo ñëw mesurer karo yi ci bitti yépp mu def ko. ah baax na te ñoom ñun ñu seetaan de. kon nag bu ñu seetaanee ba suñu jàkka ji pare. Uh-huh. léegi dinaa lancer benn appel ne nag léegi nag góor gu fi tabaxati jàkkaam. Uh-huh. wala muy def ay daayiraam. Uh-huh. wala muy woote cant. ñun jigéen ñi nañ ci maandu. Eh, kon affaire bi yàqu de. ah kon nag nañu nañu nañu dugg de benn góor sax nañu. na sagal ñu macha allah wallaay ndeysaan. su ko defee oustaz li nga wax ci aj waa Cotonou yi. am na solo Maguette Thiam. ndeysaan maa ngi nuyu waa juróom mu ngi tëngeej alaaji màgget ku baax la ak mbokkam yëpp waa tëngeej yëpp maa ngi ciy jaar di leen nuyu mhm. waaye oustaz foofu dafa am lu kéemaane loo xam ne jar na wax mhm. ndax dafa am benn mama benn bu nekk ko tën mhm. xaar saar mii moo ma ko wax ci làmmiñam mu ne ma jumaam ji ba ma demee sa jumaa ja daanaka daal mun naa bu ma ko doon tëkkale jumaa Tuubaa laa koy tëkkaleel ma ne waa lii xanaa président bi moo ko tabax wala boo kan ban multimilliardaire moo tabax lii ñu ne ma déedéet ndaw see nga romb muy bale di raxas morgue bi di di di di fëgg tapis yi ma ne ah, ñu ne ma moo ko tabax un milliard et cent et quelques benn financement jàmbur. ba pare ñëw di sëgg di bale. ñëwaat man maa ngi koy laajte naan leen ndaw si de laa bëggoon bu ma mënoon a gis sax ziar ko. ñu ne ma moom fekk fii démb moom moo doon bale di fëgg tapis yi ma ne anam ñu ne ma ma nga ci morgue ba di raxas. karo yi loolu ñoom ñii ah alaaji xaar moo ma ko wax ak ay waa këram dem naa ba sa jàkka ji julli naa fa def naa ak ay moom ay photo kon nag fa fal yatanaa fasil mutanaafisuun kon nag yéen jigéeni Sénégal exemple la ngi noonu mm-hmm. te te defe naa ne sax bu ma juumul ah est-ce que juddu na ci lislaam wóoruma defe naa defe naa sax lu mel noonu dafa dabaatal kon ñun ñi nga xam ne ñoo ci juddu woo ñu ne ñooy sëtu sëtu diw ñooy sëtu diw ànd ñu nag ci kooku ana ñun ci kooku. ku ne na natt boppam ci kooku ku nekk nag na natt boppam ci kooku en tout cas jumaam ja daal àddunaa ak may dégg nu la demoon naa fa cee jëkkëru alimatu ma ma invité woon alimatu sama doom jooju Ndiaye doomu bu Sall. Mhm. Ah, moom moom ma fa invité woon macha allah léegi na ñibbisi ne mu ngi fii di sëy fii ci Sénégal. maa ngi wax ne li may wax kon lu am seede la. Mhm. communauté sénégalaise ba fa nekk yëpp macha allah ñoom it ñu ngi ci TFM bi dara ump leen ci. bés bu mhm. nekk ñu wooma di wax ne ñoom ñëpp abone nañu. macha nag émission bi macha allah nag mu ngi def ci loolu lu am solo. macha allah comme ni nga xamee ne. Euh, moom la ko yeneen mbokk yi taxawale. bu ko mm. defee léegi oustaz dama lay delloo kàddu gi. pour bañ a mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla euh, kaaw nee na ma mu ngi lay nuyu di la. ziar di defal émission bi mais nee na nañu nañu tudd. muddum koor bi ñaata la bu dee ci xaalis ñaata la ñuy génne ak juuru korité bi li ñu war xam nga imam bi bu toogee ba juuru korité ba nit ñi julli si ba pare mu leen di wax naka la ñuy dinañ ci ñëw léegi incha allah beneen affaire la dinañ ci ñëw incha allah uh-huh. euh, tabarkalla mbokk yi comme ni ko Adja waxee noonu la uh-huh. euh, lu baax lu baax baax na trop mais kuy lebal na nga lebal yàlla man zalazi waaw kay man dal ladi yuqridu llaha qardan xasanan man da dal ladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yu yudaa'ifahu donc kon kooku def lu baax loolu jël alalam nekk jigéen tabax ci jàkka mënoon na wax ne maa ci tabax jàkka mais déedéet mais mooy obligé ñëw di dindi jàkk di dindi mbalit mi ci jàkka ji di ko nettoyé te xam nga am na lu yonent bi saa salaam wax ci kuy nettoyé jàkk yonent bi nee na boo foree ci jàkka mbalit lu toll ni tàggu picc bu gën a tuuti nee na sunu borom dina la effacer sa effacer sa bàkkaar yëpp ba noppi ëllëg sunu boroom dina la defal leneen ci aljanna. oustaz foofu il faut que ma ma wax la fa dara. Mhm. xam nga si jàkkam ja. Mhm. amoon na benn jigéen bu doon bale foofu. dëgg la. ndekete yonent bi bàyyi na ko xel. Mhm. moo tax ma bëgg a dem Medine bale ji jàkk. macha allah ndeysaan profession boobu laay wër. bi mu kiiyee ndaw si yàlla def mu génn àdduna. rek ñu suul ko bañ koo wax yonent bi. oh la ndax du dara jigéen bi doon bale daanaka dañ ko xeeb yonent bi xëy si rek gisu ko mu mel ni kuy jéer di wër gisu ko le lendemain mu ne waaw soxna si doon bale fii anamu ñu ne ko ah kooku génn na àdduna barki démb ba denc nañ ko yonent bi xaalu maa ko leen lu tax waxu leen ma ko ñu mm-hmm. ne ko ah ku nekk sëg mu ne yóbbu leen ma léegi fi ñu ko denc mu dem tiim ko defal ko la mu ko defal. macha allah. ko non Seydina Mohamed. te xam nga ni loolu beneen affaire la macha allah la xoolal ki doon bale jàkk ji. Hmm. moo tax ñiy volontaire nekk si jàkk yi di. bale xam nga am na ko tudd dem nga wax ne. Hmm. Euh, li mu seetlu. Hmm. mooy morgue yi duñ leen toppatoo. waaw moom mu jël en charge di toppatoo. morgue yi te dafa yore société de nettoiement. muy Xadi Xadi Jóob Sow. bu parcelle ki jël maire bi en macha allah xam nga loolu. yooyu dafa nekk yu am mm-hmm. solo macha allah Dia. Mm-hmm. kon nag euh, yu baax yaa ngi noonu daal. waaw fan la ca naafisul mu tas mm-hmm. naafisul kuy jongante boo bëggee jongante. fa ngay jongante mooy fu nga xamante ni ku fa jongante jong. wallaay wallaay macha allah kon nag yal nañ ci yàlla xiir. te yombalal na luñ ci def. mais Adja lu mel ni loolu kooku loolu kooku def noonu. jigéen na ngi fii. comme ni ma la ko waxee sànq. bu jigéen boo xamante ni bii Oustaz Ndiaga Seck rek moo ma jox numéro ma woo ko rek mu ne ma dinaa fa yónni kenn mu ñëw. ka mu yónni mu ñëw natt jàkk ji ci biti. ne karo yëpp dina ko def ba fi mu nekk dama fa demee tey ji ña ngay karole ku dugg ci sama Facebook di nga gis ni ña ngay karole macha allah parce que activité bu ñu def rek dama koy photo sànni ko ci Facebook bi pour nit ñi di gis ne ñi ngi am. tatawur tuuti ma la aw ma Facebook ba tey de. non euh, après dinaa la boole euh, ki ma ki ma kii mu kii la. keroog waa waa DGS ñëw nañ sama kër sa di ma naan ma ñi ñuy wax ci diine bi yëpp yow rek yaa amul kii email ak Facebook. non euh, danaa danaa ci taxaw. man ba léegi maa ngi yore lii rek ak bic. non da nga ah, loolu xam nga. man mi mënatuma bind déedéet loolu du xew man mi mën a tubaab bi sama sama wujj yëpp dañ ma ciy reer di ma wax oustaz sax am na tablette léegi nag kon boog ngeen jëndal ma tablette ndeysaan wala dinaa ko wax njaga ok mu wutal la tablette macha allah Youssou ko yégee léegi ma am tablette ndeysaan incha allah ndeysaan euh, léegi ñu ñëw nag ci daara ji aja mhm. démb tudd nañu muur koor waaw ñu wax ni ci ñaari taa lay dox mhm. Mhm. bi mooy nit ki am na lu muy def loo xamante ni du santuñu ko mu def ko ci koor. te loolu day wàññi tuyaabaam. ñu ne ko génneel muuri koor. mooy lamam yi xanaa. ah mooy lamam yi. waaw lamam yi daal waaw yu rëcc rëcc rëcc rëcc yu sew yooyu. yoo xamante ni waroo ko woon def. Mhm. masalan nga toog di seetaan télévision ba gis ci ku ku génnee yaramam te waroo ko woon xool. Mhm. wala sa sët bi sonal la ba nga wax baat boo warul woon wax. Mhm. wala sa doomu ni jaay wax la sonal la ba nga wax baat boo warul woon wax noonu laa ko mën a misaale mhm. yu mel noonu day wàññi point yi wala nga waroon toog sax jël sa temps yëpp jeexal ko ci mariage te fekk na waroo ko woon def ak liir horoscope ak liir horoscope ak mhm. euh, ay jeux yu demee noonu te yooyu yëpp amoon mënoon nga am sensu remplacer ko ak ay tur yàlla mhm. loolu nag la muuri koor ñëw di fatt tur yooyu bun bunt yooyu lay fat bi ci des mooy mu nekk solidarité ci pénc mi xam nga yonent bi saa sallam dafa wax ni nanu fexe ba miskiin yi doon wër di laaj bis boobu bu nu dem wëri di laaj dëgg ci jàkk yi nuy jullee euh, léeg-léeg nga gis taalibe boo xam ne taalibe boo xam ne dañuy wax ne taalibe la mais ci bis boobu da koy gis doo xàmmee ndax bis bi bisu korité la ci moom wala démb la woon parce du sangu du sol dàll tilim jaa ngi ci moom duñ ko solal yére te yonent bi waxoon ni mhm. nañ leen nañu fexe ba bu ñu yëg euh, bisu bu ñu yëg bu ñu sonn du ñu dem laaji ci bisu feet bi diggante boobu mhm. noonu ñu seetaane xale bu ndaw boobu bokkul ci feet bi mhm. bokkul ci feet bi loolu loolu est-ce que amul amul responsabilité bu oustaz ba am ci moom maanaam sëriñ daara ba am ko ci moom te te oustaz euh, am na ci kullukum raain wa kullu raain masulun an raayatihi am na ci responsabilité bu mag te yàlla cippatu na ko dañuy lancer appel ci sëriñ daara yi ak ñi dëkk si booru daara yi ak ndeyu daara yi ku nekk xale ba nga jëloon tippoo ko na nga ko wutal lu mu sol mais bés ba na nga insister ci sëriñ bi imposer ko. parce que il est temps que ñuy dem si ñoom di leen imposer na tey xale yi li ñu fi dugal ci ay sarax. liñ fi dugal ci ay ndimbal. bugguma leen a gis tey ñu ñëw di yalwaan wala di wut si dara. nañu toog ci kër gi. te xale yi nañu solu. te itam jàkke yi nañu vigilant. heure julli yi ñu bañ bàyyi nit ñi ñuy yolwaan surtout di jaabante ñu leen di imposer ñuy julleendoo ak nit ñi mm-hmm. ñi nekk ci entourage u jàkk bi entouru jàkk bi laay wax mm-hmm. baal ma mm-hmm. entouru jàkk bi ñi si nekk toog ci su heure julli jotatee nañ leen imposer ñuy julli rawatina xale yu ndaw yi nga xam ne ku ci soluwul su ñëwee nañ ko dàq ne ko dellul duñu sol dàll duñu sol dàll duñu sangu te te te nag wax dëgg yàlla oustaz yenn yi tamit mhm. nag ñun il faut que ñu jël ci suñu matuwaay dëgg-dëgg parce que itam nguur mënul egg fépp déedéet te buñ ko fi defee gis nga biñ ko yëkkatee ñëpp commencé mhm. waaw parce que dañu dañoo ciblé daara dañuy xeex l'islam mhm. kenn xeexuñu am na si loo xam ne ñun tamit dañu war a jël nag suñu matuwaay dëgg dëgg Adja bërki démb dañu am conférence fii Parcelles Assainies waa ji ñëw di woy si wallahi lazim bu yuuxoo kenn dàq ko baat ci àdduna mhm. ban baat lay wax laa ilaha illallah mhm. ba mu zikkaree ci ci Baay Ñas kenn kero ku nekk salon dal na sa dënn mais waa ji li mu sol mhm. ma ngi xotteeku ba biñ ko saraxee poos bi munul def xaalisam oh ma ni ko yow ma ni ñi toogoon jullit ñi ma ni lii waru leen ko wan a seetaan mu egsi ma ni ko kii nañ ko jël yóbbu ko ma ni ko nanga nga ñëw sama kër soo ñëwee dinaa jël ci yére kaaw yi mu mu mu mu neex ko mu bañ koo neex ndax euh, xaw ngeen a tolloo mm-hmm. xam nga kaaw moom taxu ko mu toll ni man <laughs> moom yërem dafay yeb mm-hmm. dinaa si jël mm-hmm. jox la ko te duma ko tàggu parce que nag euh, Hind. Mhm. ba mu laajee yonent bi ne ko man nag léeg-léeg ma jël ci poosu waa ji mhm. lu mu yëgul mhm. ndax la may jox moo doyul yonent bi ne ko a nag ki la Hind xanaa kon yow yaay Hind boobu xamoon mu ne ko amul problème kon nag ñun tamit nanu jël ci yëre njaboot gi ku nekk bu pare ne woon benn xale nga jël sa benn tenue doom ndax tenue boo xam ne yow ajjuma ba ajjuma nga koy sol wala korité ak tëbaski war nañu bës boobu benn jullit warul te dañuy xool ci suñu mbokk waa église doo mës a gis man day benn yoon laa mosoon a gis kuy woy woyu woyu woyu woyu woyu alléluia di yalwaan ñoom lu tax duñu yalwaan lu tax yalwaan bi yëpp man kaana lillahi kaana laahu te yàlla lay sa faqir te te te te Adja foofu dinaa la ci dolli am na koy yógu ci ligne bi ñu jël ko dinaa la ci dolli suñu mbokk laayeen yi waaw na nga gis laayeen bu taxaw di di di di di yalwaan di wax maam Seydina Limaamu di yalwaan turu ci maam Seydina Limaamu azaka baa tax donc organisation bi ñuy wax rek day ñëw ñu jël ki ci ligne bi te ñëw léegi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum waaw kay Adja yokkal kàddu gi tuuti rek euh, ñu ngi leen di bu baax a baax baax. ko kan la. Euh, man benn mbokk taalibe la rek buy wootee France. macha allah xam naa dama koy leb ba incha allah ci kanam xam naa dinaa jël sa numéro jokkoo ak yow bu baax a baax. incha allah taala Adja. tabaarakallah kontaan nañ bu baax vraiment émission bi am na solo. jërëjëf. ñooy nuyu maa ngi nuyu sama yaay euh, soxna Fatou Bintou bu baax a baax di ko ziar. macha allah maa ngi lay fay nen tuuti. ah di rafetlu bu baax émission bi wax dëgg yàlla am na solo. te ñun ay ndaw la ñu waaye di jàng lu bëree bëri bëri ci émission bi vraiment. Mhm. jërëjëf di ko rafetlu. te comme liñ doon ñaan moom la dimbale nañu ba ñu am ko te émission bi dina continuer après koor gi incha allah. alhamdulilah dañ ciy dégg bu baax a baax a baax a baax. wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér. ak yéen tamit wallaay ko yàggal leen fi. amiin yàlla yàlla yàggal leen fi vraiment. may leen kàttan bi ne li ngeen di def parce que lu noble la vraiment di woo nit ñi ci diine moom wax dëgg yàlla ñun amuñu dara lu dul diine. amiin te moo ñu ñor. aha xam naa nag incha allah su ma mënoon am seen numéro parce que di jokkoo ak yéen de temps en temps di waxtaan ak yéen xam naa dina nekk lu ñuy. incha allah incha allah baax a baax. da ngay bañ a coupé rek laasana dina la ko jox léegi incha allah. da ngay bañ a coupé rek laasana dina la jox numéro yi léegi incha allah. ok na garder ligne bi ay sëñ jox ko ko. ndeysaan macha allah euh, xam nga yaa léegi nii. wax nga lu am solo. mooy mooy mooy mendicité bi. Euh, nii nii sunu mbokk laayeen yi organisé woo. waaw ba doo gis laayeen bu taxaw ci mbedd bi. di di di wax barki maam li maamu di di di laaj. sangoo baray jamono. waaw yàlla ñu bàyyi laay. rabbi laay la. doo gis bëriwul. man de musuma gis yalwaankat bu koy def. man musuma ko gis de. waaw mus naa ci intervention benn mbokk imam Jal. waaw ma ne ko lu tax man gisuma gisuma laayeen. bu yalwaan waaw Jal Thiaw laay yow kooku sama càmmeñ ah, ku baax. ah kooku Jal moo maam raan. wallaay maa ko xanaa xamoo maam raan ñun mooy suñu wasila kër laayeen. léegi léegi téyel ma foofu ma ñëw ci ci loolu. loolu moom macha allah ku baax mooy mbokk ñëpp. macha allah wallaay wallaay ndeysaan. ku baax mooy mbokk ñëpp te am niveau. wallaay macha allah léegi nag mu mu ne ma. waaw bàyyi laay dafa organiser ci asaka. allahu akbar dafa organise ci asaka. parce que naa ne salaire bi sax par mois. Euh, loolu la ma wax. mu ne ma ñoom ci seen salaire. Mhm. dañ ciy génne asaka. Mhm. parce que dégg-dégg la bu Seydina Limaamu am. nga xamante ah, mu ngi noonu. mu ne ma dégg-dégg bu Seydina Limaamu am moom la am utiliser ko ci salaire yi léegi dootuñu xaar at mi mais martialité lay doon. Mhm. alors léegi kon bu ñuy wax ci muddi koor. ñu ne kon dafay génne dafay génnee manqué manqué point yi nga xamante ni moom la nit ki manqué ci koor gi. di di dimbale néew ji doole. kon bu dee ceeb bi ñaata la euh, pour loolu mu bañ ñu rëcc. waaw ak bu dee xaalis ñaata la. waaw léegi ma jël ki ci ligne bi. te te nu wax bu dee ah, xaalis ñaata la. Mm-hmm. incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ok waaw kay Thiam soxna Aïssatou na nga def. ci biir Aysatu boobu maa ngi ciy nuyuwaale Aysa yëpp rawatina suñu soxna Aysatu Fall bële macha allah. Astu ah, Fall waaw ñu leen di nuyu. maa ngi leen nuyu te Adja Fatou jërëjëf maa ngi ziar. ñaanal jàmm ak salaam. alhamdulilah amiin amiin Diagne oh allah. Oh man nag moom léeg-léeg ligne bi moom du ma bëgg rek bu dul jogante ko. <laughs> Ah, ligne bi dina ñëwaat léegi ah, incha allah macha allah Aïssatou Diagne mi nga xam ne macha allah. soxna Aïssatou dama ligne bi waru ko woon def ligne bi waru ko woon mais yàlla dina ko dugalaat incha allah dina dugalaat incha allah. waaw bisimilah oustaz. Mhm. dañu wax ni. Mhm. xam nga démb tudd nga ko. Mhm. tudd nga nga ni deux kilos. deux kilos. am na am na deux kilos mooy ñaari kilo waaw mooy ñaari kilo kilo ji di di. waaw si sama mbokku Haalpulaar waaw <laughs> léegi bu ñu jëlee bu nit ki bu génnee deux kilos pour mm-hmm. per par personne. Mm-hmm. deux kilos oustaz may ma foofu. Mm-hmm. léegi nag man fii deux kilos Sénégal xam nga presque mënul lu si ëpp cinq cent la. waaw kilo cinq cent ñaari kilo mille francs. waa léegi man su ma nekkee Amérique. léegi nag te ma war ko génne foofu nee nañ douze dollars la ñuy génne. jëlal jëlal jëlal ki ci ligne ba pare. waaw waa mbokk mi bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw maa ngi nekk tur bi maa ngi woote fii France. Mhm. waaw bisimilah. waaw dama bëgg ci émission bi kontaan trop nag ci seen émission bi. doo ñu baal rek nga yokk kàddu bi tuuti rek yaay. waaw ma ne bëgg naa trop ci émission bi. alhamdulilah wallaay ñun tamit bëgg nañ ci yow macha allah. <laughs> macha allah keroog maa ngi dégg. soxna Fatou Bintou yaa ngi doon wax ci épilation. waaw. waaw léegi dama bëggoon nga jokk ma sa numéro comme ça ndax ñu mën a jokkoo. waaw d'accord incha allahu taala léegi bul coupé après laasana dina la ko jox. macha allah. Mhm. tabarkalla macha allah. Mhm. Euh, Adja. Mhm. xam nga bu fekkee deux kilos yi. xam nga kilo nag moom tolloowul njëkk. waa tolloowuñu njëkk. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nañ ko génnee ci li ëpp li ñuy dunde ci réew mi. Mm-hmm. Euh, am na koo xamante ni kii bu dee boppam la dem bu tudd nga ko. Mm-hmm. bu dee boppam la day dem jënd kilo deux mille cinq cent ba kilo sept cent. basmatique beeg yooyu. waaw yu baax yooyu. ak TCDC waaw léegi bu fekkente ne bii dafa bëgg jox miskin yi. mu dem jënd kàmb mu dem bu trois cent bi wala wala bu kii bi ah, déedéet. Euh, kon ñoom tamit ñoom. ñu nekk ci wala wala moom fii waa këram di lekk ceeb tous les jours. Mm-hmm. mu xalaat ne dugub bi moo gën a yomb. Mm. wala wala mboq bi. Mm. wala wala lor su xaw ma. Mm. mu dem jënd loolu di ko di ko natt. te moom du ko lekk moo ko nga ne boobu tamit baaxul. mais bu mu def noonu yàlla. aaya alquran bi kay waxu nga ko fi démb. Uh-huh. lan tanaalul birra nga waxoon démb. wallaahi hatta tunfiqu. mimma tuhibbu mimma tuhibbu li nga bëgg. waaw li nga ngay jox yàlla pour yàlla delloo la. delloo la ko. te itam oustaz comme euh, maa ngi wax ne fatwa nañu dagan na si yëpp ñëpp xam nañ ko mhm. lu ñu nangu la ñii génne ci xaalis ci xaalis génne ci xaalis mhm. baax na ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum mi mhm. asalaamaaleykum aleykum salaam salaam rahmatulah na ngeen def ñu sant bu baax ngeen di gërëm jërëjëf waaw man nag soxla woon waaw mi ngi lay dégg macha allah dama bëggoon xam rek ndax euh, mun naa am numéro am hors antenne. allah. waaw incha allah léegi laasana dina la ko jox euh, am ay tolof tolof la woon ku ma xelal dëgg dëgg dëgg. ndeysaan. ndeysaan waaw waaw ndeysaan tolof tolof yu oustaz bëri na. Euh, nit dafay soxla ku mu wéccoon wallaay ndeysaan wallaay dañ koy soxla hmm. ndeysaan. xam nga waxoon nañ ko ci biir koor gi. wallaay yàlla leen yàlla taxaw koo xamante ni kii dafay soxla li ci dënnam. mu am fu mu ko mën a yàbbi pour noyyi ndeysaan parce que dafay am solo macha allah. Mm-hmm. moo tax naa euh, la daloon zuqar na wallaay dëgg la macha allah ndeysaan mm-hmm. Mm-hmm. oustaz euh, am na ñoo xam ne fi mu nekk ñu ngi dëkk ñu ngi dund ci néeg yu lëndëm. macha yàlla leeral yëpp yal na yàlla leeral yëpp. waaye jullit ñi itam. am nañu responsabilité bu mag ci réew euh, da danañ ci ñëw ci yeneen daara yi ñuy def après Korité bi. danañ ci ñëw pour nañu jàppale nit ñi nañu fexe daal. ba jullit ñëpp am añu korité ak macha allah walaay waaw loolu moom ñun ñëpp nañ ko toggoo eh, bu dee taalibe yi nañ leen am dal waaw am yére am yére bu ñu mën a bokk ci jullit ñi ñi dëkkal mhm. et itam ñun ci suñu bopp mhm. ñu xool suñu armoire yi mhm. yi nga xam ne at a ngi nii wala laaluñu ko ñu seet suñu mbokki bopp yi wa atul maala ala hubbi dawil baa ñaari yiw ngay am mm-hmm. sarak yeeg ku nekk nga yónnee ko benn mbubb ak mm-hmm. dix mille mm-hmm. wala cinq mille baax na ba ci doom yu ndaw yi ñu am te amuñu seeni waajur macha allah gontuñu ku nekk bu defaroon fameem léegi penc mi jàpp macha allah te loolu mooy at parce que léegi-léegi nit ñëw jàmbat la ba pare ne la pourtant diw sama mag la wala diw sama nijaay la ci lu wér loolu macha allah am na koy yëngu Adja bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu ñu ngi lay koy delloo yaa booy. Eh, di ziar sama doomu ndey di sama xarit. est-ce eh, ah, waaye woote yëpp sa bos moo ma dàqal bu asufaal nag mer. ajaarama <laughs> wàdd ndeyra ma wàdd maa ngi madame Fall. maa fekkeel déwén. wallaay maa gën a kontaan yàlla la jàmm yàlla xam na ne bi nga wootee sama yaram daw na. waaw sama xol sedd na guy. jërëjëf jërëjëf Wade. sama xol sedd na la bur yàlla jàppale. amiin amiin bi tey na la yàlla soog a dogal may soog a dugg. wallaay wallaay. jërëjëf waa université yëpp ñoo ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf wallaay nax nu ko zaalika. di ziar alaaji bi nga toogal. wallaahi macha allah ñu ngi ziar professeur Mamadou Ndiaye. wallaahi wallaahi. ziar El Hadj Cheikh ah, Cheikh Makhtar Seck. Seck Makhtar Seck sama nijaay. wallaahi bu muraan sant di la ziar. wallaahi ndeysaan. kay jëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Adja Ndeye kontaan nañu. alhamdulilah moom moo doon conférence keroog samedi. moom mooy amicalu université de Dakar. macha mooy président bi. macha yàgg liggéey nag ci diine. sant yàlla bu baax waaw diine moo ñu boole ak màkk yoonu màkk. léegi yóbbu na lu mat quatre-vingt quelques personnes mag. yàlla yàlla na mat cent quatre-vingt ba université ñëpp dem wallaahi jàmbaar la moo ko Awa Diop daf ñaar ñooñu ñu ngi liggéeyal seen borom alhamdulilah loolu rek moom solo aja wallaahi jàmbaar fakk tëdd la ñu ñii yàlla fay na leen yiw xam nga université dugal fa lislaam yombul yombul yombul waaye xale yi léegi dem nañu gis nga jàkk ji gis nga xale yu jigéen yi ñetti nit ñoo gis ñaar ña léegi muuru nañu macha allah ci kanam la ñu njëkk te université xam na lan fa xewoon ma woon allah léegi muuraay baa nga fa sunna sax diine diine rek sa kanam wallaahi ak daayira yi nag tariqa yëpp mm. am nañ fa ay section macha allah sant yàlla macha allah sant yàlla alhamdulilah mm. loolu loolu la ñuy soxla loolu la ñuy mm. soxla jullit fu mu nekk diine moo koy couleur moo koy gunge mm-hmm. léegi ñu ñëw ci li euh, liñ doon wax léegi waaw euh, danañu génnee muri ak mm-hmm. xaalis mm-hmm. te commencé na depuis démb de man démb ju génne naa sama muurum koor. yàgg ñeneen. waaw euh, xam nga anticipation bi dafa baax. Mhm. xam nga yonent bi saa sallam crise mësta ñëw. Mhm. mu dem ci borom azaka yi mu ne leen anticiper leen seen azaka ñu jiital ko deux mois. deux mois avant un an bi. avant muy am naa ñu anticiper Seydina Mouhamed. parce que boobu temps euh, social bi moo ko laajoon. man daal fenn rek laa laa koy. am na laa koy laa koy xaw a kii tuuti lu tax mu tànn dem rek. moom lu tax mu tànn dem. Euh, dinañ ci ñëw léegi incha allah euh, ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. jërëjëf Adja na nga def. maa ngi rek. waaw mbokk bismillah. ma maa ngi kontaan trop maa ngi kontaan bu baax ci émission bi quoi. waaw tur bi naka la mbokk. man Daouda laa tudd maa ngi wootee Côte d'Ivoire. fan ci. Abidjan Abidjan la woon Abidjan Abidjan waaw am na benn Korya sax bu dëkk Abidjan ku ñu woo tey ñoo ngi nuyu waa Abidjan. macha allah bisimilah. waaw kay man de dama a laajte ba xam euh, mburum koor mi. waaw. ba xam mën nga ko jox ko bokkulul koo xamante ni du nitu diine ko quoi. koo bokkulul diine l'islam. Hmm, dinañ ko tontu waaw ba xam dinañ la tontu léegi. waaw kay maa ngi ah. ñoo ngi nuyu waa Côte d'Ivoire yëpp. macha allah merci beaucoup. waaw xam nga Adja balaa muy mën a dem ci ñoom. day fekk ne amatul fu mu dugg ci ñun. waaw <laughs> ñoom koy moomuñu ko amuñu ci cër nag. dama ne balaa muy a dem ci ñoom. day fekk ne amatul fu mu dugg ñun. moom am parce que ñu demee ba gisatuñu benn jullit bu ko yittewoo. waaw su boobaa la ñuy seet ndax war na dem ci ñoom. war na dem si ñoom waaye fii ñu toll moom jullit ñaa ngi koy yittewoo. <laughs> dëgg yàlla nag suñu ay xarit lañu. Ah, ñoo bokk waaye nag euh, mu dum koor mi mhm. ak euh, donnante bi moom mënagul am. mënagul nekk waaw mënagul nekk te loolu euh, loolu. su ñu yoo xam ne mm-hmm. bokkuñu diine te mm-hmm. jéemuñu leen a xëcc seen mm-hmm. diine. bu ñu deewee kenn du ci doon sa morom waaw te yenn saa yi li ci gën a metti nag doom yi dañ leen di wax ñu choisir seen diine. bu la neexee nga ànd ak papa ou nga ànd ak maman. moo tax lu doy waar la moo tax gis nga yàlla bu xasee ba yàlla bu xasee ba rëdd. dafay wax ne tilka xuduudullaahi rek. falaa taataduha waaw mu jeex. ok day wax ne falaa taataduha rek. kaay te ngeen bañ a jaar fi parce que conséquences yi ci am. Mm-hmm. yàlla moo ko maîtriser. Mm-hmm. nit maîtriser wul conséquences yi nekk ci yooyu. waaw donc léegi xam nga xam nga moom ku mag kooku. Mm-hmm. borom barrière or. sallallahu alayhi wa xam nga yàlla daf ko ne tànnal. waaw na téyel oh. ñu jël ko asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ok Adja na nga def. sopp naa leen daal. waaye ñoo la raw daal. Mm, ñoo la fuuf. <laughs> maa ngi leen ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax ñu ñu suñu bronc yi nekku fi si koor yooyu. macha allah yàlla ko yàlla def. dama doon laaj muurum koor man dama ko joxe bi ci basi démb. waaw. man ak sama borom kër bi barki dem est-ce que c'est baax na wala damay defaat beneen. macha allah dinañ ko tontu léegi macha allah. yow boo santee Ndiaye da ngay génne beneen de xaw ma nag noo sant. <laughs> sopp naa leen bu baax na. ñoo la gën a sopp. sa waaw bul coupé après dinañ la ko jox incha allah ñax kontaan nañu ci yow kontaan nañu ñu ngi lay nuyu yàgg sëriñ bi. ok Adja xam nga comme teeloon na ko génne. Mhm. Euh, nee na démb. wala barki démb barki démb la wax. waaw kon nag xaw na mel na ni waragul woon. waaw waaw parce que dañu ne bu desee ñaari fan. mais non man liir naa Saoudia laaj naa ko sax benn imam foofu imam Zahraani mu ni ma une semaine avant. ñoom ah. ñoom fatwa nañ ci. xam nga mooy li ma am li ma wax rek anticipation. waaw waaw ndax bu fekkee ni ñooñu ko soxla soxla bi ak fi muy jaar. waa xaw ma nag xam ngay man du ma faqi man damaa bëri solo rek <laughs> te man xam nga man ku ma dénkoon réew mi man lépp rek day daal di am naa benn xarit boo xam ne saan maa ngi koy nuyu de mm. passage su defee dara jëkkër ji ne ko waa lii nga def mu ne ko Fatou Bintou laa koy laaj <laughs> mu ne ko sa oustaz boobu daganatul dong a fi nekk musuma gis mu tere la loo def rek mu ne la daggan na <laughs> ndeysaan xam nga fuqaaw yi dañuy wax ne. Mhm. Euh, lu mel ni bu desee benn wala ñaari fan. ñaari fan la fuqaaw yi di def. mais xam nga bu fekkee da nga ko xiyaas ci ne yonent bi sallallahu alayhi woon na jamono. ci azaka ci deux la de. ko defee di nga di nga am foo mën a teg sa tànk ci loolu macha allah loolu moo tax ma ne moom dañ koy wax di baax na. Mhm. mais à part diggante démb ak tey ak. ba ba ñuy wari. ba ba ba avant imam di julli man tamit damay damay gën a tawkiit. Mhm. ci ñu wax ne nañu ko génnee ci ci. fulus xaalis xaalis waaw. ci sunu jamono bi ci benn affaire moo tax ma koy wax. yonent bi dafa wax ne nañu fexe ba bu kenn génn di wër. waaw ughnuhum ani tawaaf fi hadha al yawm la xadis ba wax. comme ak ah dañ leen di tere dañuy bañ ñu génn dem di yi nag. soo toogee ba ci journée bi nga jël ko jox ko euh, cinquante kilos ceeb. mu yenu ko mu yenu ko nag bu ko yóbbu. waaw di wër nag di wër. di wër borom boutique bu mu ko wecci te bu demee ci borom boutique ba borom boutique ba day kase prix bi dañuy kase prix ñoom tamit dañu ragal yàlla ci loolu waaw su ko defee yooyu nag day nekk yeneen ah, gàllankoor keroog ñu ngi génne xale yiy jaay seen kii mhm. suukar bi ñu ngi koy jënde xaw ma di bekk di euh, un franc cinq franc mhm. pour jaayewaat ko ñaari dërëm vraiment ñoom it na seen yaram di daw loolu moo tax euh, ñu bëgg ñu génnee ko ci xaalis waaw nga jox waa jeex liquidité bi mhm. mu dem bu bëggee dàll pour njabootam bu bëggee ganaar pour njabootam bu bëggee bëggee sunguf pour njabootam bu bëggee buy pour njabootam mu mën a teel a dem jëndi ko balaa boutique yi di tëj mm. fekk ne dana ko soxla mm. mais am na leneen lu yonent bi jàngale Adja waaw mooy euh, boo ko génneewul bañ ba pare ko boo ko génnewul ba mu julli nekkatul muurum koor ok sarax lay doon ok te euh, loolu euh, am na conséquence waaw parce que ki nga waroon dimbale dimbalee dimbalee too ko aussi ah. moo tax yonent bi doon ko da nga am ko su nga am ko sàggante rek. sàggante nga topp sa mbir loolu mooy wane ne. Mhm. mbiru yàlla ñoru la. ok defar sa koor ñoru la. Mhm. parce que gis nga Oustaz wax ji itam il faut que ñu koy ñeme. dëgg la xam nga dara daf lay saf mhm. yitteel la. te yonent bi dafa ne. man la yahtam ma. bi umuril muslimin bi umuril muslimin fa laysa minna képp koo xam ne sama njaboot gii ummatu sayyidina Muhammad lii sallallahu alayhi wa sallam ñii yàlla bind ñuy dund nii yitteelu la. yonent bi nee na bokkoo si ñun. macha allah te ñàkk cee bokk wóorul de. wóorul de mm-hmm. wóorul de fexe ba ñu bind la ci liste bi daal. waaw eh, nga am carte membre moo gën a wóor. moo gën a wóor waaw xam nga léeg-léeg nga gis ko bokk ci association moom yàgg ñu ne kii dàq nañ ko ci association bi. waaw te itam oustaz itam ngay bañ a jënd carte ba pare xotti ko. xotti ko mu ngoog te loolu musibal aussi. te loolu tamit am na am na koy yëngu ñu xool ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum. mel na ni rëcc na Adja yaa ngi doon tudd sànq nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Euh, lu tax mu d'accord a dem. waa ndax moom moom daal dafa baax te bari ker sax man léeg-léeg foofu na moom su may liir ba toll foofu ci moom rek damay mel na ku war ne ndeysaan. waru woon dem pourtant ndeysaan ndeysaan. ndax biñ ko tànnalee gore rek. Mhm. mu ne yónnent yëpp dem nañu lu ma fiy def. man ak a gore. te pourtant bu choisiroon toog. Ah, mu toog ba pare te li ko yàlla digg yépp du tee dina ko ko jox du ci wàññi dara. macha allah. moo tax kenn du moom. Euh, xam nga dafa bokk ci gore. Mm-hmm. Euh, lu ñu séddee sa moroom nga si bu ñu ci séddee doo doo ko xeeb. waaw ci gore la bokk am na kuy yëngaa ah, macha allah salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. barakaatu. man maa ngi woote fii France. waaw mbokk mi. Euh, du may lépp tur bi. incha allah waaw kay baal ma. baal nañ la ma euh, dama kontaan ci émission bi bu baax di ci bëgg bu baax a baax. di bég ci yéen di bég ci soxna Fatou Bintou. macha mm, allah jërëjëf. jërëjëf franchement maa ngi soog a commencé di muuru léegi ci sama raw royuwaay la. alhamdulilah sant yàlla. ma ko allah amul benn problème bu soobee yàlla bul coupé après alaaji laasana dina la ko jox incha allah. incha allah. jërëjëf a baax. wallaay nax nu kazaalika ñun tamit bég nañu si yéen jërëjëf. macha allah Adja loolu lu lu lu rafet la. lu rafet la jullit bu xool ba xam ne lii dafa manqué ci sama diine. Mm-hmm. jullit laa. waaw jullit laa mais sama diine dafa manqué lii. Mm-hmm. ci man ci man. Mm-hmm. maanaam maa waroon a matal lii mataluma ko kon nag jël naa sama fulla ak sama fayda pour matale li ma war a matale te li ma war a matale sàng sama cër lañ ma jëkk a sant kon naa sàng sama cër wallaay macha allah loolu nag macha allah gis nga dafa am ay sœur Adja Dior Silla couturière-kat bu mag la sëru Makhtar Sylla bi nekkoon directeur. RTS te moom mag sër bi ndeysaan Abi Sylla ñoom mm. dañu mel ni ay. doomu bàjjen ak doomu nijaay kii nag day muuru kii. Mm. daaw nag ci màkk bi la commencé muuru. xam nga man muuraay bi. Mm-hmm. macha allah dafa am ñoo xam ne buñ ko defee dafay jongama. macha allah su ko defee ñoom. Euh, ndeysaan nag ñu ci doon xëccoo ci kàddu gi kii di mm-hmm. wax maa dàq kii kii di wax maa dàq kii ma ne leen man daal xaw ma waaye daal ki muuru daal moo dàq <laughs> mu ne ma ñun ñaar ñëpp a ma ne ko kon boog yéen ñaar ñëpp rafet ngeen macha allah kon oustaz gis nga mm-hmm. muddum koor mi mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek ñun daal nañu fexe ba ñun jullit ñi ñëpp ñu lancé leen appel ku nekk na jël en charge alal aqali ci li nga tollool yow yaa gën a xam li nga mën mhm. yow wóor na la ne mhm. ginnaaw dama bëgg ne xam nga mhm. lu ma bëgg a wax moo di ne mbir mi duwul ne man ñaari doom rek laa am ak man ak sama borom kër dañuy dénn mille francs parce que loolu mooy muddum koor yow yor nga leneen lu ëpp loolu da ngay gis koo xam ne dafay wër weccet parce que dafa war a jox kii 3000 2000 bi amu ko te moom doyewu ko dara daanaka sax laay mhm, wax. Mhm, mhm. loolu da koy dugal ci ne juróom benn téeméer yi mu dum koor la wala juróom ñetti téeméer yi 4000 francs yi. ñu jël ko ci lii la reste nga def ko man tatawwa xayran. dëgg la loolu nag man tatawwa xayran ba 100 ba baax macha allah barakallah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. ok mbokk mi bisimilah. sant borom bi bu baax. macha allah alhamdulilah allah. man maa ngi woote Mauritanie Aliou Ka laa tudd. Sidi Ali na nga def. macha allah alhamdulilah macha allah Seydi Ka topp yéen rek bëgg ci jërëjëf. ngeen wax ci diine bi macha allah kenn du ci teg dara. maa ngi laaj affaire murum koor yi ndax nit mun na koo dindi comme tey. ok alhamdulilah. waaw ak bu génne ndax mun na jox ko soo xaw a sori tuuti ci dëkk bi la nekk mais daa xaw a xëcc tuuti. macha allah. macha allah barakallah jërëjëf. Euh, Seyda est-ce que koor mi mënuñu koo génnee ci meew. <laughs> waaw man parce que kami euh, lekku gay naa ko <laughs> est xam nga bu dañ ko delloo ci aqit day moom mën na nekk moom. <laughs> xam nga itam euh, laaxu korité bi soow baax na ci de soow pir yi. sunguf sunguf meew pouder bi. poudre bi sunguf meew poudre bi. Ah. parce que itam variété bi baax na ci oustaz bu kiy joxee kii ceeb. kii joxe ginaar leen ak ay satu nañu génn ci ginaar yi indi la nag <laughs> xale yooyu ay ay xaw ma lan lañu ma am nag benn doom day saan njanoor maa woo mu ne ma da nuy ñoom awa eleen ñoom ñëpp ak ñoom biri ma sekk sama doom yooyu sama am doom yoo xam ne macha allah samay doomu bopp lañu macha allah su njanoor nag sama doomu bopp la moom ak ay satu jàll ñoom ay seen nijaay nag macha allah <laughs> léegi comme pël yi mm-hmm. ñoom dañuy am sow piir bi waaye oustaz nag am na lu jar a wax. Mhm. Euh, bi ma demee keroog. Euh, tontul question mbokk bi ba doog question bi mooy. Mhm. mun nañ ko génne tey. Mhm. loolu moom mooy li ñu doon xam naa xëj na kii bi daf ko rëcc mun na ko génne tey mun na ko génn fii ba suba. avant ñuy dem juma. te génne ko jox ko ku sori. déedéet na xanaa bu fekkee ku jege amu fa ku ko soxla. parce que nag bala ngaa. waaw wàlliyaan day fekk sa kër dafa dëkk dafa tëggul mm, mm. parce que itam yéene ko sa cousine bu amul wala sa kii mm. bu mu tax nga xañ ko miskin mi nga dendal te moo ko moom waaw loolu nag moom lu jar a xel la waaw nañ ko jox ñi gën a jege fal aqrab jeex na ko donc mu ngi noonu mu ngoog euh, laaj la boo xam ne sas dafa am am solo ñiy jaay meew yi ci yoon bi mm-hmm. di ci def ndox boo ñëwee nga war ko woyal pour war ko kii fekk su su si yoonu Joal bi mm-hmm. keroog dañ fa jënd soow ci yoon bi mm-hmm. Euh, bi ñuy ñëwee di ko woyal genn wàllu butéel bi yëpp ndekete ndox lañ ci def. xoolal loolu. waaw ak mango yi ñuy jaay ci yoon bi di jël yu nëb yi di ko jiital danger bi mu am. Mm-hmm. ak lépp lu ñuy jaay rek nañu defe naa Seydouna Omar xis sa boobu yow laa koy delloo ak ak ak ndaw sa ak lu mm. taxoon ba mu am ci doomam ju mag jooju Abdou Aziz ibn Umar xam nga balaa Seydina Omar di ñëw waaw eh, yonent bi dafa def loolu mhm. xam nga yonent bi comme ni contrôle économie yi di dugge si bitig yi noonu la yonent bi doon dugge ci marché bi di dugal loxo bi waaw ñoo fekk benn waaye buy jaay rek xam nga mbaaña la doon jaay wala lu mel noonu waaw mu dugal loxoom ci mhm. biir fekk ci biir mi ngi tooy mhm. te warul woon tooy waaw mu ne ko lii nag mu ne ko asamaan se ko tooyal mu ne ko nga teg ko ci kaw ko bëgg jënd ko bëgg gis ko donc boobu façon

buñ ñu koy def Seydina Omar li mu def mm-hmm. xam nga kilifa day nemmeeku li mu dénk njabootam macha kilifa day nemmeeku li dénk njabootam gis nga réew mi yépp li fi nekk mm-hmm. yàlla mi ngi ko teg ci loxo président Macky Sall waaw moo tax responsabilité bu président Macky sàll amul ku tolloog moom ku am responsabilité mu toll noonu parce que Seydina Omar dafa mosoon wax mu ni. mbaam mu fi fakkastalu sax. waaw sama responsabilité la. man lañ koy laaj. donc kon moom responsabilité am dafa yaatu. kon ci wàllu commerce bi njaay mi njënd mi transport bi ni ñuy noggatoo nit ñi ni ñuy augmenter prix yi ni ñuy kii loolu ci responsabilité ni chauffeur si yokk paas yi yooyu yëpp ci moom la dellu responsabilité am la mm-hmm. parce que war na teg ñu vigilant ñoo xamante ne bii du ñu nangu loolu yokk njëgu ginaar gi yokku nen yi yokku légumes yi yëpp responsabilité am la baaxul xam nga Seydina Omar bi muy dox ci guddi gi di di xool lii xew ci pénc mi mm-hmm. ba romb fenêtre bi dégg soxna si naan doom ji jëlal ndox yokk ko ci soow mi pour boo demee suba prix bi gën a bari xaalis mm-hmm. bénéfice bi gën a bari mm-hmm. mu dégg ko mm-hmm. xale bi ne xale bi yàlla baaxal ko mu ne waaw yaay loolu jarul def parce que yàlla ko tiim waaw yaay ji ne ko no boo ko deful fii boo demee ba marché doo ko mën def parce que contrôleur yi contrôleur Omar ñi ngi fa xale bi ne xale bi ne ko yaay xanaa xamuloo yàlla mi contrôler le contrôleur lu Omar yi yàlla mi ngi nuy gis fii nu toog nii keroog Seydina Omar dafa gàbbar ci kaw kaw ba ñëpp ko cautionné buntu kër marqué ko waaw ca suba sa mu xëy mhm. yoon ni benn njabootam ne ko demal ci kër googu benn jigéen a nga fa bu amul borom kër jël ko mhm. parce que man nag man nag Oustaz li tonton Mansour may doon wax sama yaram a ngi daw daf ma xam naa feebar boobu daf maa dugg dëgg la ndax léegi sama yaram bi daw na ba nga xam ne. macha li xale ba wax yaayam ne ko bu la Umar gisul itam yàllaa ngi lay gis lam yakun Umarun yara fa rabbu Umar fa rabbu Umar yara yaraak donc am yaraaki ndax ñoom faat ka nag ñoom <laughs> ñu ngi toog rek di di ko mais mën nga wax nag lam yakun Umarun yara <laughs> euh. fa rabbu umarin yara yara te du nekk benn foot nag macha allah waaw parce que ñoom gis nga nag ñoom ñoom ay jëmb faara ñoom faara ñu jël ci ligne bi macha allah te ñu ñëw ci xawaayid yooyu incha allah <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah taala wa barakatu <laughs> kay mbokk mbokk waaw man Tomar na ngeen def ñu ngi lay fay macha allah kooku ah, naka tata Fat Binta maa ngi leen nuyu yéen ñëpp macha allah maa ngi lay fay ne ne tuuti alhamdulilah kontaan nañ trop trop trop si yéen macha allah macha allah. wallaay dama dégg moo tax ma woote waat vraiment wax dëgg yàlla. wallaahi. te di ñaan incha allah rabi ngir yàlla li la war a suuree nañ continuer émission bi puisque du koor gi kese dañoo am ay ay questions yu ñu war a posé xamuñu fu ñu koy posé. macha allah il faut ñu am les bons endroits les bonnes personnes. ñi mm-hmm. ñu mën a wax loo xamante ni ñu mën a dégg ci xaalu allah xaalu rasulullahi sallallahu ay xale lañu gaa waaye alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla dañuy dimbale rek émission bi continuer koor gaa ngi jeex ne man je m'inquiète dans ma man yàlla buñ ko arrêté non du arrêté incha allah ah. bi yoon kay ñaan eh, loolu moom euh, waa waa kilifa yi fi nekk nangu nañ ko ba pare alhamdulilah léegi contenu bi rek la ñuy xool incha allahu nuñ koy ah. defee loolu bu leen inquiété wu alhamdulilah incha allah moom adduna bi yëpp ci bëgg. adduna bi bu ñu duggee dara dañuy dem ba jeex macha allah macha allah man fii laay nekk sama saal ba quatre heures du matin. télé bu jeex eh, alxuraan rek ma seetaan beneen télé di zappe rek. wallaay yow xaalu allah rek macha allah ñu ngi sant yàlla di leen gërëm. yàlla de yàlla mi gudd fan. wër yaram ak sutura bu bëri. amiin amiin ak fataaw incha allah rabbi amiin amiin bu leen ñu fàtte ñaan tonton moom dinaa leen woo incha allah. incha yàlla yàlla mottali macha kontaan nañu barakallah kontaan nañu oustaz. alhamdulilah macha léegi moo tax oustaz waaye nag ku gis lu baax. ndax dangay ngay yem ci ne allahu akbar rek lu Umar teg ci loolu. déedéet xam nga Seydina Umar. Mhm. Seydina Umar. Euh, dafa gis Umar sax maa ngi jéggalu sama borom. Euh, ay dafa gis lu baax. Mhm. mu bañ mu rëcc ci njabootam. allahu akbar. parce que lu baax boo ko gisee da nga koy xëcc taf ko ci sa bopp. alxikmatu sax. dallatul mumin. ana wajadaha axadaha ana wajadaha gis nga soxna si li muy wax nii. Mm-hmm. nee na nee na nee na nee na ñëpp bëgg TFM. Mm-hmm. parce que ñëpp koy kar. Mm-hmm. mais aussi am na lu mu wax. nee na dañuy soxla ku ñu oriente ci ay ay hadis ak ay alquran yu wér. yooyu lu ñu soxla moo tax bëgguñu ñàkk émission bi loolu lu am solo la Seydina Omar radiyallahu taala anhu dafa gis ne fii ko baax a ngi fi te lu baax boo ko jëlee boo ko gisee danga nga koy xëcc taf ko ci bopp te xayyaru li nutafikum fa inna al arqa dasaas donc mu xam ne doomam ji bu takkee fii dara dana fi génn dara dina fi génn mu dem mu fexe ba doomam dem takk fa moo tax ñu am xaamisul xulafa xaamisul xulafa macha allah eh, mbokk bi mu ne ñu àndandoo dem dem benn benn tuuti. waaw te dellu si waat incha allah eh, libaas libaas ak ñuy xaar tey ca prison ba. macha allah macha allah camp ci côté jigéen ñi à de 15h. yal na yàlla fay ko yiw amin amin yaa rabbal alamin jëf ju baax. Mhm. yal na ko yàlla saxal. amin amin jëf ju bon. Mhm. yal na ko yàlla nasaxal. nasaxal macha mhm. allah tabaarkalla ko ñu dem pause te dellu si léegi. incha allah léegi léegi mbokk yi. macha allah.